toppatoo doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës doxal sa daal buñ la tàddeel doxal la fàtte leen te nga dox sa dox non non bu leen bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox mojo mojo bu leen bës bàyyi mu dem yow daal bu la tardeel doxal sa tey nag ñu am contentement ci bés bi ñi nga xam ne Badara monsieur Badara Ndiaye mooy def caravane bi nga xam ne monsieur Badara Ndiaye di maire boo xamante ne nii maire bu nangoo liggéey jàppale askan bi lañ ko xamee euh, mu ànd ak nga xam ne mooy président Issa Dieye chambre de métier waaw nga xam ne monsieur Badara Ndiaye euh, kat la boo xamante ne wóolu nañu mu nekkal ñu euh, assemblée nationale ndax bépp mosu ñoo am daal ku ñu nekkal ñun artisans yi assemblée nationale te monsieur Badara Ndiaye ak président Issa Diaye moom lañ bëgg ñu nekkal ñu assemblée nationale ba nga xam ne loo lépp loo xam ne artisans yi gënal nañ ko rek dinañ ci moon a jot ñun ñi nga xam ne ñun ñooy artisans yi looloo tax ñu fas yéene ànd ak Badara Ndiaye lu mu laaj ñu def ko ba nekk. nos députés loolu lañ loolu lañ dina xëy rek bañ la gis nañ ko fii te boo ko laajoon la wax lu waral lii fu mu toog dégg sa tur li na nekk. sant rek waaw li ma koy conseillé rek mooy que ne Sénégal moom benn bopp la waaw boo nekk ñoom tamit am na ci loo xamante ni ànd ceeg ñoom si ñoom it lay conseillé tamit waaw ndax tamit liñ bëgg rek askan wi liñ bëgg rek lañ lay wax. waaye tamit am na solo itam nga leen di bàyyi xel boo bàyyi xel seen wax ak say wax nga boole ko tamit Sénégal mun na jëm kanam te li nga bëgg mën nga ko am incha allah waaw ndax loolu moom daanaka ouvrier yëpp bëgg nañ ko ndax ku nekk ci liggéeyu ouvrier bëgg nga lu développé bëgg nga loo xamante ni itam maanaam saa boo ci duggee mu doon loo xamante ni di nga ci gis sa bopp kon kooku dafa mel ni kon li muy def nii ouvrier yi buñ ko déggee dinañ ko ci fekk ci incha allah waaw ADL moom waaw ouvrier bu ko déggat waaw war ngaa xam ne itam ci jàppale ñu la nekk ci suñuy bëgg-bëgg lay dox tamit te ginaaw ñu nit bëgg nañ suñu liggéey aw yoon bëgg nañ ñu koy teg ci aksi tamit kon ADL boobu noonu maanaam bépp ouvrier boo xamante ni sama mbokk nga maa ngi la ciy sàkku nga dem ci ADL boobu noonu wooteel ko waa ndax boo ko wooteelee doo ko rëccu incha allah ndax lu luy loo askan wi kanam rek ouvrier moom lay wut ouvrier bëgg na li ñuy liggéey ñu di ci gis seen bopp kon pour ñu mën cee gis suñu bopp il faut ñu ànd ak ADL boobu la njaaye badara njaaye yàlla na nga raama njaaye badara ba yaay dawa sa député meereel Badara ye bata baaye biram bate baaye ye Badara bata bay nay bay de mooy sa yaayu baye bata bay yami bata bay ye ngooge bata bay maki bay maki bay maki bay kër bu fashion sol sa yére yu fashion yor sa oto bu fashion am àndandoo yu fashion di dox dox bin bu fashion billaahi bu lang ak ñoom nangu jëndaate bul toog ak ñoom nangu jëndaate bul wax ak ñoom nangu jëndaate bul seet ak ñoom sa kër ba mu nekkee ak Matar ñoom ñaar dañ doon ànd rek politique boole leen te xamuñu ñoom ñaar lan lañ bokk ba ma gëstoo ba gis liñ bokk dama leen naa woo ñoom ñaar ne leen kaa leen ngeen toog ñu ma ne leen bon politique moo leen boole ngeen di ànd def leen ko la base mais nag am na lu jiitu politique parce que nii ngeen bokkee wax leen niñ bokkee ñoom ñaar ne leen nag fu ngeen di munti nekk aussi na ngeen jiital mbokk googu ba pare doot ci toftalaat nag politique. te la ma leen doon conseillé ba léegi ñu ngi ci ñoom yàlla àtte na ñoom ñaar ñëpp amu ci kenn ñoom ku ñaaw kàddu amu ci kenn ci ñoom koo xam ne que dana taxaw wax loo xam ne li nit dana toll fële ne cëy lii de yaakaaruma ko amul te loolu rek la ñuy doy nii dama leen koy wax. ñaar rek a ci nekk te ñaar yooyu yëpp bu ci nekk seetu la muy wax ji ak jëf ji seetu nag boo ko jëlee teg ko ci sa kanam nii loo gis image boo gis yow la image boo gis rek yow la te politique ñaar yooyu ñoo ci nekk wax ak jëf moo tax lu ci nit di wax na ko na nga ko ko segg seggaat ko lu ci nit di jëfit fexeel ba nekk ba mu nekk jëf du rafet ëllëg a tax te politicien aussi day yaatal boppam day xajoo ñépp parce que kiy ut du wàññi politicien balaa nga koo nekk dëgg dëgg dëgg dëgg nga mun a antan si nga xam ne kii dalaa bañ ba mu fës te mbuur la ne kii daf maa bañ te foo jógee foo jógee tàllal ko loxo defal ko fa la ñuy na ne kii nii mu ngi ci yoon te li am sax dafa ne fang kenn du ko jixaat kenn du ko jiixaat ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp ku ci nekk na xàtti sa tànk tubéy mbir mi du badara ñun la man de échec rek laa bañ ci àddina te li may jiital itam sama xel mooy que nit man pour man l' impossible n' existe pas tubaab daf koo bind rek mais l' ma bëgg nag les artisans yéen nga xam ne yéen a nekk fii keroog sa réunion fële waxoon naa leen ko ku ci nekk artisan fexeel ba au moins nga am vingt personnes yu nekk ci sa ginnaaw war a mun a woote ak yow bu ngeen ko defee bu ngeen mootee vingt bureau de vote bu ngeen taxaw ngeen gañe fa su ko defee jaxaw nekk ci loxo Badara yàlla def caada nekk ci loxo Badara ñu dugg dans le Ndiob def fa la même chose dugg dans le Mbéla Kajaw def fa la même chose dugg dans le Jawle def fa la même parce que nag nit ñi sonn nañ de nit ñi lu leen génnee ci lu leen lu leen génnee ci ñeneen ñi moom dafa yomb.